fii moom kontaan nañ ah kontaan na trop trop trop trop kontaan nañ affaire bi neex na yëfi sénégalais la Sénégal daal moom moom lii xam nga Matar suba teel ak siis comme ah jël mbooloo mi yëpp indi leen fii indi xale yi jeunes talent yi ñëw pour bégal nit ñi nga kontaan nañ daal ndax ñëpp bég nañ daal ñëpp bég nañ non organisation bi rafet na lépp nice na lépp jàmm organisation bi nice na fii set na ah ñëpp bëgg nañ daal too fi dara loo xam ne daal yaa ngi ko doon jooy daaw ak daawaati jéeg rek jooyatoo ko ren ndax lépp nice daal fi mu nekk foo foire bi ren yàlla nay mel ni chaque jour doyal nañ ñu daaw yeeg daawaati jéeg ndax yooyu moom doxul fii daal lañ yii daal yii daal lañ bëgg. waaw xam nga rek ah, ànd sama xarit sama doom day jogay ah, mu woo ma te ku ne xam ne maa jogay benn lañ ah, jogay mooy maajoor mooy jogay su ma oowee nag damay ñëw ànd bi. waaw mais sant yàlla rek euh, Adja moom ñëpp ko bëgg ñun nag dañu soog a door rek defagun dara nag nanu xaar rek incha allah yéen ñu dàq yi mu ngi ñëw ci kanam incha allah. waaw concert bi tey dama ci ànd ak maxu suba teel muy sama waay xam nga moo organiser lii ñëw wooñu pour ñu jàppale ko ci bis bi waaw depuis bi foire commencé ba léegi nag ñun ñoo ci nekk waa di job booy staffu maxu suba teel ñun ñëpp ñoo si nekk di liggéey ak moom mu nekk initiative bu nice jeune talent yëpp la ñuy indi nag oui jeune talent yëpp ñoo fi jaar. waa organisation bi jaar na yoon amul cambal cambal xam nga doo fi dégg benn affaire boo xamante ni da lay métti affaire bu nice la gars yaa ngi yore sécurité bi nice fii moom lépp nice quoi lépp jàmm quoi oui. tar Tarba Mbaye toj na fi te Sidi Diop a ngi nii di yéeg mais Tarba Mbaye chapeau def na fi affaire bu nice waa ak ñeneen ñi fi jaar yëpp ay Papa Ndiaye Thiou ñoom ñëpp toj nañ fi mais suba tamit amaat na oui incha allah.